di ñaan sunu borom fekke loonu ko ay at yu bare bare bare bare bare di ci balu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan sunu boroom boole nu jéggal sunuy rëcc rëcc te sunu way dawlu itam sunu boroom xare leen aljana di ziyaare ndaab ndaab yi ak ñi sant jaxate ak ñi sant siise tey laaj ñu def ak xar mi am mbégte lool ngir fas yéene àndaat ak yéen ci seen émission bii di xam sam réew di TV di nuyu ak a ndokkeel mbokk yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci kippaango Facebook Facebook bi di ñiy safoo nga xam sëm réew nga xamante ni biñ ko sosee ak léegi yàggul waaye mbokk yi ci dugg ngir safoo chaîne bi daanaka mat nañu juróom-ñeenti téeméer te bi ñu ko sosee yàggut kon képp koo xamante ni bëgg ngaa dugg si ci mbootaay kooku nga xamante ni wala kippaango googu nga xamante ni boo ci duggee vidéo bu ñu def rek dañ leen ko fay tegal ngir ngeen man koo seetaan soo fëggee rek danañu la uppil eh, bunt bi muy kippaanga googu ñu tuddee ñii safoo xam sam réew te mu nekk ci Facebook kon ñoom itam ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar mbokk yi nu ñëw ak yéen ci ñetteelu pàcc jëm ci li doxoon ci diggante gouverneur Faidherbe waa ñoom rek xam ngeen ni ñëw nañu ak yéen ci ñaareelu pàcc bi ba egg fi nga bi ni bii moo doon cong mi feder bu doon song te yabaloon gaayam ya mbiraama dëkk boobu nga xamante lakkoon nañu ko te waa ñoom yi tëru woon leen ba ñu ñëwee bay wëgg seen fas ya ak di leen xont la waa ñoom dal ci seen kaw faat ca ñoom lañu ca faat loolee nag ba mu amee gouverneur Faidherbe bu wax na ni léegi kat espace yi rek ci lay mën a sukkandiku ndax li fekk colonne bi muy soldat yëpp di egsi ngir ñu songaat waa ñoomre nee bi soldat yi ñëwee nag ci lañu jaajuwaat ñun ñëpp rek daldi songu ñoomre nee songu mu am solo lanu songu njàmbur njàmbur yooyu waaye nee na ñoom day song bi lañuy bari bari ngànnaay ak soldaar ak njàmbar rekk la wone ñoom waa ñoom rek nee nañu faatal nañ ci ñoom ñaar fukk ak benn foofee ci cong ma ña ca des nee nañu daal di wàññeeku ndax nee na booba njóor li nga xamante ni tirailleurs yi ñu ngi koy soqi ci seen kaw metti na lool te nee na ñu du tirailleurs yi rek ndax làppatoo yi itam ñoomit it ña ngay soqi ñëw nañu wallu si bi ñu egsee ñoom it daal dugg ci biir xeex bi nee na gannaaw ñaar fukki yooyu nu faatoon ci ñoom faataat nañu ab lim ndax nee na li ñuy wax archers yi nga xamante ni ki leen jiite moo doon commandant bu ñuy wax sardu soqi nañu njóor lu bare bare bare bari ba tax na waaye ñoom rek gën a dellu gannaaw ñoom nañ nee nañu ñaar ñu gaañu rek lañu am ak wenn fos wu ñu rey ak ñeneen ñett ñoo xamante ne ñoo am ay gaañu gaañu ñoo wax naa leen ni saa fu ñu leen reyalee fukk ñu ni benn lañu reyal ñu ni nag sëriñ ñoom rek suñu sëñ njuga ante dikkaloo doomam bokk na ci ñi nga xamante ni bii faatu nañu faat nañu leen doom yi sëñ Jomre ci la bokk ak ay yeneeni kilifa ay yeneen kilifa yu dëkk Ñomre mu ni nag cong mu nga xamante ni ñun ñëpp dañoo jóg dalandoo ci seen kaw def na mbégte ci nun ndax am nañ ca ndam lu rëy rëy rëy nag ci noonu ci la waa Ñomre dellu ginnaaw nun itam bi digg bëccëg di jot di midi ci la ñu wàññeeku dellu ngiig ak sunu kolon sunu soldaar yépp waaye nee na bii yoon waaye ñoom rek topp nu ndax ñoom nee nañ waxuma la topp waaye ñi nu leen faatal seen néew yi sax amuñu fitu ñëw ngir rob leen loolu itam ñu war cee def ab taxaw seetlu mbokk yi Faidherbe bu nu muy bàyyi ko Ndar ñëw ngir xeex ak waa Ñomre waa Ñomre jeexuñu mu wàññeeku won leen gannaaw nit ki nooy xeexee ak moom ëpp ko ngànnaay ëpp ko awdit xeex ak moom mu faatal la nga faatal ko kon kay bu nee ne bu fekkente ni waa ñoom rek dañoo dellu gannaaw ñoom ñi dañ leen waroon a topp waaye wax ni waa ñoom dañoo dellu gannaaw nu nit nu wàññeeku waxu leen la am yéen a daw yéen ñi jóg song si waa ñoom rek te wax ni waa ñoom rek ba ñu déggee ni noo ngi ñëw dañoo jóg gàttandulu ngeen wàññeeku di dellu ngi naan waa ñoom dañoo dellu gannaaw amuñu fi di ñëw rob seen néew yi wax jooju day xel nanguwu ko ndax nit ki booy xeex ak moom xeex bi jeexut waroo dem li ñu waroon ni waa ñoom rek dañu leen a faat ba ñu jeex nu doog a wàññeeku waaye waa ñoom rek wàññeeku nu wàññeeku ah, euh, wax jooju taq na suuf lool lool lool lool lool lool ñu ni nag bi nu delloo lii mbir moomu nag muy li dox sunu diggante ak waa ñoom bi mu jeexee ñun ñëpp dellusi na nu ngi waaye li ma leen wax ni leen tubaab yi di xew waxuñu ko ñoom pour ñoom xeex bi jeex na waa ñoom rek dellu nañu gannaaw amuñu fitu ñëw rob seeni néew ñoom tubaab yi ñu ñëw ngi waxu leen la xew yéen kay yéen a ndax nee na bi loolu amé nak ba nun ñëpp nu dellu si giig ci la nu am jafé jafé bu gëna jafé jafé jafé ye yee un autre euh, euh, convénient bien grave se présentant pendant la journée nee bi nu dellu ci ngiig nak ca la ñu am jafe-jafe bu rëy rëy rëy ci bis bi jafe-jafe yi nee nañ mooy teen yi ngiig ya ndox ma jeex na doyatul ngir man leen a wëgg ñoom soldat si ak seen fos yi ñu waroon da bu leen fàtti ni ñoom ñoo waxoon ni am nañu ñeenti téeméeri soldat yooyu dañoo war kon war nañoo wëgg ñeenti téeméeri fas ak ñetti junniy nit ak ñaar téeméer mu ni nag ndox amatul kon nag noo ngi xalaat yan pexe lañ war a def ndax ndox buñ ko amul dana metti ci nun lool lool lool lool ci noonu ci la ñu jóg ngir seet barab yoo xamante ni bii ndox dana fa am nee nañu ndax bu nu amul ndox bu fekkee waa ñoom di yëg na ni am nañu jafe-jafe ndox mën nañ noo songaat <laughs> feder yow mi jógoon di songi de léegi sa lay yi woyof na lool lool lool lool lool lool nga buy tiit ni sunu ñàkk ndox gi bu ko waa ñoom rek yëgee mën nañ noo songaat mu ni nag kon ci noonu ci lañu jël ay matuwaay ndax nee na li nu gën a tiital mooy waa ngi ñoo leen nettali ah am na xare bu fi jóge woon fuuta de waaye la leen lor de moo doon ba ñu jógee bëgg song kajoor ñàkkum ndox moo tax la bëggoon amuñu ko boobaa léegi war naa mat juróom fukki at ba ko waa Kajoor yégee ci lañu ñëw song leen faat leen ba ñu jeex tàkk kon nee nañu loolu moo taxoon ñoom it ñuy tiit waa ñoom rek yégee ni ndox amul ñu ñëw song leen ñu ni nag ci noonu nag ci leenu jóg nee euh, waa ngi nee nañu leen du waa Fuuta rek ndax am na fi naar yu bàyyi ko woon gànnaar yoo xamante ni ñoom itam ba ñu ñëwee di songu loolu moo leen dal ñàkk ndox moo tax ñu faagaagal leen mu ni nag teen yi foofa seeni guddaay toll na ci fanweeri mètre nee nañu am nañu bisub lëm toog di xalaat réfléchir nan lañu ñu mën a def ba am ndox une journée de réflexion bu ñu doon def ngir naka la ñu mën a def ba am ndox nee na ngir mbir moomu lijjanti laaj na ñu xëy ba jant soo di xalaat nan lañu ñu mën a def ba am ndox nee na ñu wut ay rek ñu wër di laaj ndax waa ñoom rek ñi ngi ñëw wala déet <laughs> nee ñu seen journée boobu ñu toog di xalaat yi ñi kay ñi kay waa ñoom rek dañ leen duma ba ñu bàyyi fa seeni sagar ku yor sa pilim ak sa lankar nag loolu neex xaatim loolu neex bind waaye ñi ñuy déglu tey jëfandikoo seen xel xam nañu ni Faidherbe lam yaakaaroon amul amul ndam nee na journée de réflexion boobu ñu doon def di xalaat fan la mën a jële ndox nee na dana wut juróom-benn rek ni leen wër leen di xool di laajte ndax seeni ñu fi waa ñoom rek ñuy ñëw wala déet ak waa ñoom ne ndax dañoo jóg jël ñoom rek wala dañoo jóg song si waat nu fii di njiig nee na roj yooyee daal di dem di yëddu ak a xool ba xam nee ba ñuy dem sax dañu àndoon ak ay soldaar su weex su yoroon ay ngànnaay dem ba fa ñu doon xeexe ak waa ñoom rek ba xam ndax nee nañ booba itam soxla woon nañu am ngooñ mu seen fos yi lekk loolu nee na moo tax nu boole ca ay soldaar yu yor ay ngànnaay ngir won waa njàmbur ni leen doole la nu yor na ngeen nu bàyyi xel ba lii dal waa ñoom rek bu bu bu ngeen am xalaatu jéem fippu nee na wanaale leen itam sunuy fetal waaye nee na lan doon tiit ba nu demee fan doon xeexe it ay néew rekk lañu fa fekk waaye waa ñoom rek dem nañu waaye nee na ñu di am ab ab ab xibaar bu leen xamal ni leen waa ñoom rek demuñu ñoom rek de ña nga njax te nee na njaa dëkk la bopp mi ngi dox suñu digganteeg ñoom rek te nee na ñoom waay ñoom rek kat nee nañu waaj nañu waajaayu song nu wala bu ñu leen songee ñu fayu nee na lañ ci jublu nag mooy bañ nu egg biir ñoom rek ndax mbiraama lan doon xeexe léegi ñoom waa ñoom rek ña nga njaax rek nee nañu la def nja mooy bëgg bu nu jógee ñu song nu ngir nu bañ a egg biir ñoom rekk nee nag bi ñu demee biir mbiraama fa la ñu fekk benn teen bu bari ndox nee na ci lañu daal di wëgg ba ñu amee ndox nag ni far kon léegi léegi kon nanu far jàll ñoom rek nee na ci njolloor gi ci la ñu yew ñu yebal soldaar yi ngir ñu dem ci wenn xur wu nekk mbiraama góom yi ma leen doon wax ni leen ay marocain lañu nee na ñoom ñu ni leen yéen toog leen njiit di toppatoo mbirum ndox mi di root nee na ci noonu ci la ñu am li nu yittewoo woon ci ndox lépp lépp lépp lépp am nu am ko nee na ñu daal di fay tabax tabaxu ban di ci wax ab redoute maanaam ab dal la bopp nee nañu dañ koo tabax ci digg pencum ngiig lu tax ñu tabax ko nee nañu sunu soldaar yi am ay gaañu gaañu ñoo tabax ñu tabax tabaxu ban boobee ngir man leen faa dalal ndax mënatuñoo xeexi mbokk yi ku xeex ak nit gañe ko wax ni boo waxee nga ni ñaar lañu reyal ñett lañu gaañal ba noppi dem di tabax ab redoute boo xamante ni yow yaa waxal sa bopp ni sunu soldats yi gaañu ñoom lañu fay denc kon redoute boobu nee nañu ñi wopp ak ñam ay gaañu gaañu lañu fay bàyyi ak sunuy kaake sunuy bagage nee naa ñu bàyyi fa itam ñaar téeméeri soldat ak benn officier téeméeri soldaar yooyu ñu fa bayyi ak seeni ngànnaay dana tax wa ñom re bayyi xel ci songu seen kërug soldat gogu ñu tabax tabaxu bant moy redout bobu ndax nenañ bëggulu wa ñom re wëri ñëw songu redout bobu waxuma la redoute bi waaye teen bi nga xamante ni bii moo am ndox ci la ñuy jëfandikoo bëggunu waa ñoom de wëri ñëw nungu teen bi wala ñu fexe ba dootuñu ci mën a wëgg ñu ni nag ci guddi juróom benn fan jàpp juróom ñaari fan ci weeru mars ci bi ñetti waxtu ci guddi jotee góom yooyu nga xamante ni mooy les góom marocains ba ñu rootee ba ndox ma doy nag ci lañu ñëw fekk si nu mbiraama ca xurwa nee na nag ci la ñu ànd ñun ñëpp nag ngir dem song yi ñoom rek nee na waa ñoom gi nga xamante ni bi raj yi demee gis nañu ni ñoom ña nga njax nee nañ ñoom it dañoo daal di génne njax ngir dem ñoom rek nee na ba nu fay ba nu jub si ñoom rek la génne njax dem ñoom rek ndax nee na ñooñu nga xamante ni ñoo dëkk njax euh, la waa ngi defoon ragal tubaab bi tax na ñu wan waa ñoom rek ni leen nun ànduna ak xeex bi duñ ci dugg nee nañ loolu yi moo tax waa ñoom rek daal di génn njax ngir dem nag xaarinu foofe nga xamante ni mooy ñoom rek di seen dëkku bopp nee na bi ñuy egsi bañ seen ñoom rek mu ne ciw tund nee na waa ñoom rek waaj nañu ñoom itam ba jël position waaye nee na ñoom fa ñu nekk sunu kanu yi ñu yor bu ñu jooreem njóor dana egg ca foofe nga xamante ni fa la waa ñoom rek yi nekk nee na fa ben dëkk bu ñuy wax paha nga xamanteni ni ak ñom rek ci ab kilomètre lay tollu nga xamanteni ni na ñu li tubaab di wax plan muy li waa ñom rek ñar euh, euh, nar nañu naral be xex bi sunu rek yi fexé nañu ba xam ko ndax suñ raj yi di ay espion ñoo leen raju ba gis ni nga xamante ni noonu yi la waa Ñomre fas yéene lootaabee xeex bi muy plan bi nga xamante ni moom lañu tëral te nee na raj yi nee nañu leen ñoom ni ñu naral lootaabee xeex bi ñoom waa ñoom rek mooy songu tubaab yi ci wet gu ne songu ci ndeyjoor songu ci càmmoñ songu ci kanam wet yëpp ñu songu ne nañu loolu mooy li nga xamante ni moom la ñoom ren nar mooy song nu ci wet yëpp rek ak ci gannaaw itam nee na rawatina sax ci gannaaw waaye nag gis na gis ni ñoom noonu ñu bëgg a lootaabee xeex bi duñ ko mën nee na yi nga xamante ni war a dëkk boobu di ñoom rek wet gu nekk ay ñett ñoo fa nekk ab làkk boo xamante ni bii tool yee taxoon ñag yi bari lool nga xamante ni ñag yooyu mooy dox diggante tool yi ak dëkk bi nee na tool yi tool yi dugub la ñu ñag ko te nee na taxas lañ ko ñage maanaam tool yi dugub yooyu taxas lañ ko ñage walla moom lañu ko làkke taxas boo xamante ni dafa am ay déeg waaye nag nee taxul mu ñu rëy taxa rëy rëyaay goo xamante ni euh, boo ko bëggee boo bëggee ñaaj-ñag bi dana yomb jéggi ko dal nee nañu lu yomb lay doon waaye nee na nag la ca jafe-jafe ba mooy faaw jéggi dana la jàmm nee na dëkk yu baree baree bare bare ñoo ca nekk nga xamante ni boo jéggee bu ñuy jéggi euh, ñag yooyu dëkk yi dañuy jam nee ci noonu lañuy jël ñaari pàcc ñaari peloton d'infanterie nee na ñoom lañuy ñuy yebal en tirailleur ñu jiitunu nee na ki nga xamante ni bii moo leen jiite lieutenant bu ñu doon wax pipi lieutenant pipi moo leen jiite benn officier moom it jàppale leen ànd ak ñoom ci railleur sénégalais yi ñoom it nee na ñu yebal leen ci wetu càmmoñ gi compagnie de débarquement bi ñu yebal leen ci wetu ndeyjoor gi arrière garde gi muy ginnaaw bi moom ñu yokk ci ay officier ak ay volontaire gaa yooyu gàddu seen fetal yi ndax bu ñuy séddoo alal yi ñu am ca waaye nee nañ yi ñi ci ëpp ci wetum ndeyjoor gi lañu ñu nekk nee ci noonu nag la ñu di songu ñoom rek waa ñoom rek seen gawar yi ñuy soq ci seen kaw ngir bëgg a mën a jege si nee nañu ñag yooyu nga xamante ni moo waroon tool yi ñuy tëb ñag yi di dellu gannaaw waaye nee na dañoo jaar ci geneen wet gi gawar yi ñoom rek yooyu dana soqi ci nun njur lu bare bare bare bare bare ay wàll yu bari waaye nee na nu egsi ci dëkk bi taxaw taxawu nu fenn te noonu la ñu egsee ci dëkk bi di ñoom leen waaye nee na fekk nañ ci biir dëkk bi ay pàcc yor ay ngannaay ngir ar dëkk bi di soq ci sunu kaw léegi nag nun li nu war a def mooy fexe ba pàcc yi des ci biir ñoom rekk nu wax ci seeni mbir fexe ba génne leen nee na ci noonu nag ci la xuus ci lu toll ci ñaari kilomètre nee na daal di taal dëkk bi nee na lu doon yi nekk ci dëkk bi yépp daldi takk tàkk nee na gisatuñu kenn ci waa ñoom rek ci seenum nekk li ñoom ñoom tubaab bi nee nañu taal nañu dëkk bi waa ñoom rek génn nañu dëkk bi ñu gis ni li ma leen waxoon rek ni leen léppi Faidherbe dafa war a jóg senegaal ndax jëf yu ñaaw rek la fi jëf waaye wala dañuy wax ni lu jot yomb waaye man yaakaar naa ni euh, jot na sëkk ndagam noo moom sunu bopp ndax boo demee France ba ñu amee jafe-jafe tirailleurs sénégalais yi doon dem di leen jàppale ba ñuy tampaloog allemand yi doo dox mukk ba gis fa mbedd mu ñuy tuddee kenn ci soldats yu ñuul yi leen doon xeexal kon tubaab bi bu ñu ëppee doole not no li ñu leen tuddee woon ñoom ñu fi nekk te du Faidherbe rek Paul Holle mook frère bu ñoo àndoon ci ñi doon xeex El Hadj Omar Foutiyou euh, ci la bokkoon waaye fi ñu toll rue boo demee fekkoon Ndakaaru euh, rue Carnot rue ñoo ñëpp euh, seeni jeexital des fi loolu man lu ko waral xaw ma mbokk yi kon li ñu cërale woon ci waxtu jeex na kon ñetteelu pàcc bi mu ngi noonu nga nu delu si ak yeen ci pàcc bi ci mujj muy ñentelu pàcc bi ci jambar yoy nga xamanteni federal mu jogen jógeen songi leen ku deg net lem bi xamni jere wu ci lama len waxon senegal yagna am ay jambar nenañu lak nañu ñom re waye da ngeen nu deglu ci bi top ci bi di ñentelu pàcc bi di episode bi nga xamante ni ci la mbir yee jeexee bu boobaa di ngeen xam ndax waa ñoom re feetal bu def leen a bom maanaam da leen a gañe walla ñoom waa ñoom rek ñoo bom feetal bu ak ñoñam kon maa ngi ziare bokk yëpp sëñ Abdou Aziz Touré ci Fass Touré xalifa sëriñ Adi Touré ñu koy ziare di ziare sëriñ Ahmadou Bamba Mbeng eh, di ko oh, dalal jàmm mu mel ni bàyyi ko na Amérique ba egsi na Sénégal démb di sunu kóllëre di ku bëgg chaîne bi moo jekki-jekki rek sos mbootaay goo xamante ni jënd nañu ay jumtuwaay ngir xam sam réew TV kon euh, sëñ Bamba Mbeng ñii day wax ahlan wa sahlan dalal ak jàmm ci euh, Sénégal di nuyu mbokk yëpp rek gis nañu commentaire yi Eh, dina xamal ni seen chaîne bi lii rek ko tax a jóg xam ne démb la wees ndax nit kii dafa war a xam am réewam te ngir nga xam sam réew nag da war a xam goxi sam réew nit yi sam réew ak xew-xew yi sam réew waaye ab xew-xew ngi daal boo xamante ni eh, ay jàmbaar ñoo jógoon doon ay sëriñ yi daara jàmmarloo ak ki nga xamante ni mooy notaakoon bu mag boobu di Faidherbe kon maa ngi leen di nuyu di leen ziar dellu di leen ndokkeel rek ci tabaski gii ñu génne eh, di ñaan sunu borom nu fekke ko ay ati ati ati at yu bari kon mbokk yi man ak yéen ci pàcc bi ci des di quatrième épisode bi incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fan nañu saamu soose yóbbu gabang boole koog baraama tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu buukar